الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ينجي يسال سنتات سني بروم جل وعلا من ورسى قلات ندلو سكاب نيغم فسيني جل بن بند ci li nga xam ne dañ koy tuddee fiq ci sukkandikoo ci téere bi di minhajul muslim bu cheikh aboubacar aljazairi rahimahullah ñi ngi nekkoon ci kitaabu nikah ba yegsi woon ca la nga xam ne mooy atte yi ca doon atte yi mu ëmb yegsi woon ci li ñu tudde almahr almahr yow mi yor mool bu bees bi boo xoolee page 353 ci suuf foofu lañ tolloon mooy almahr ci wàllu sëy yi tey jii mooy juróom-ñetteelu fan ci jamaada saaniya sun maam yi di ko tuddee maamu koor moom mooy tombeek le premier janvier ci deux mille vingt trois su dee bokk nañu gis bunt bi ñu yem day jàngale kon mu ne almahr awi sadaq almahr arab yi di ko wax assadaq moom la ñuy wax ci wolof ñun li di ak can huwa ma tu'taahu almar'atu li xilyati listimtaa'i biha mooy la nga xam ne dees na ko jox soxna sa soxna sa dana ko jël ngiree mu dagan ñuy mën a bànneexu ci moom te loolu it comme niñ ko nar a jànge ci kanam jigéen duñ ko jël rek maye ko noonu comme ni ñuy mayee am xar yoo xam ne buñ la ko mayee bu la neexee dem ren di def loola neex waaye jigéen moom may gañ la koy may fokk mu ànd ak kañ ka may am lu mu joxe loole wa huwa waajibun ca loolu farata la ay farata la ci képp koo xam ni dafa takk soxna mu joxe ca can suñu boroom jalla wa ala mu ne wa aatu nisaa saduqaatihinna nixlatan mooy jigéen ñi nañ leen jox seen can ya mu nekk may goo xam ne ñoom ñoo koy moom te it mbokk can baay moomu ko yaay moomu ko soxna si boppam moo ko moom moo ko war a garder ëllëg bu gisee lu mu xamul ci sëy bi moo koy rembourser malheureusement société yi ñuy dund yaay yi ak njëkk yi ak bàjjen yi jàpp nañu ñe moom can cent mille ak un million ak dix million la ñemele lu ñëw dañu koy pasar pasare mu jeex waaye can nga soxna sa mooy ka nga xam ne moo ko moom borom bi it ne nañ leen ko jox mi ngi noonu wa qawli rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iltamis walaw xaatiman min xadid yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaje ba mu ñëwoon benn soxna ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yow mi yàlla yónni dama laa bëggoon a dénk sama bopp yonent bi ak kersaam sëgg tontuwu ko benn góorug càmmeen jóg na ko ah yu mu yàlla yónni boo ci amul soxla man teg ma koo may yonent bi ne ko ay loo am mu ne ko ah ma ma ma dara de mu ne ko demal kër ga xool même bu doon da ngay am jaaro weñ gu ñuul doonte ne ni islaam mbokk mujj naa tere ñuy takk ay jaaro weñ gu ñuul mi ngi noonu comme niñ teree góor muy takk jaaro or allahuma seen jamono it jaaro weñ gu ñuur amoon na valeur ba ëppoon la nga xam ne mooy rubu dinaar ci seen jamono kon ci gàttal mooy lan mooy can ci lislaam mooy can mooy lu yàlla farataal góor war koo jox jigéen ngir mu dagan mu nekk soxnaam ñu ngi noonu ahkamuhu lan mooy atte yay nekk ca can googee lil mahri ahkam can day mën nañ caa fekk ay atte mu indi ci juróom benn bi ci jëkk mooy yusta yustahabu taxfiifuhu sopp nañu lool ñu woyefal can gi li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam azamu nnaasi barakatan aysaruhunna mauna yonent bi nee na jigéen bi ëpp barke ci jigéen ñi mooy que gën a yomb la nga xam ne mooy charge bañ ca teg al mauna mooy takk gaag ciital gaag yor gaag mooy coono ba ñu nekk ci yor ko la ci gën a yombale loolu mu ëpp barke donte ne ne xadis bu am na luñ ca wax waaye ala kulli xaal noonu la tëdde gannaaw ba it bu ñu waxee loolu wa li anna sadaqa badaati rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaam lam doon cene ay soxnaam lam doon cene ay doomam yu jigéen kaana arba arbaamia dirham aw xamsumia nekkoon na ñeenti téeméeri dërëm wala juróomi téeméeri dërëm donte ne ne valeuru dërëm yooyu mën na changer day changer duñ ko mën a takk dëgg lañ ci xam rek mooy dërëmu ci islam mooy trois grammes d'or de trois grammes ci xaalis lañ daan wax mooy dërëmu sharia loolu li ci mën a am rek ca jamonoom lu yomboon la ndax yonent bi dafa bëggoon ak yombal mu ne wa kaza kaana sadaqu azwajihi sallallahu alayhi wa sallam mu ne noo nit la doon joxe canu ay soxnaam le fekk doomam yépp mu canna leen loolu ay soxnaam mu canna leen loolu mooy kon mbir la bu ñu yombaloon allahuma lu dul yombal day tege ca kañ ka teg benn waaye ngi nii joxe un million du dara ci moom lu yomb la ci moom am na koo xam ne laaj ko cent mille lu jafe la ci moom loolee ñu bàyyi ci xel bu baax suñu demoon suñu dëkk àll yi nga xam ne ëppalante gi am tey bariwul woon ci ñoom ñoom ñëpp ay tool lañ yaakaaroon donc seen niveau ëppalante taxu ko woon a bari trop penc mu ne dañu fa daan tëral ne lii mooy canu penc mi képp ku fi may ku fiy ñaan soxna officiellement amoo droit passé nangam li nga noonu da doon am na benn mbokk bu ma xam jamono bi muy takk soxna dëkk bu ko doon takkee kenn du fa passé cinquante mille waaw loolu ngay joxe ñu may la soxna soo yóbboo sa soxna nag loo koy defal yaa xam loolu da ngay gis ne am na ñu koy def ci ak yombal almuhim mooy kum mën a doon ñu xool la nga xam ne moo yomb ci moom ñu laaj ko can gu mel noonu solo am amam wala ak ñàkkam ñaareelu atte bi yusannu tasmiyatuhu fi l aqd sunnool nañu bi ñuy fas sëy bi di seddaloo nit ñi ñu xam ne ah moom kan may nañ ko temps loolu sunna la boo xam ne ku ko def mooy la rafet waaye nag nekkul waajib nit ki mën nañu mayee seen sëy fekk duñ tudd can gi ngi noonu te comme ni muy ñëwee ci kanam mooy jigéen mën mën nga nañ la ko may ba nga fas ko ci tuddaloo ko can waaye nag suñ ko waxoon ñu seede ko loolu mooy lëgën ñetteel bi atte bi mooy lan mooy can mu ne yusaxu bi kulli mutamawwil wa yusaxu bi kulli mutamawwalin mubaaxin dana wér ci lépp loo xam ne alal la ju ñuy moom ju dagan tazidu qaymatuhu ala rubu'i dinar boo xam ne ëpp na la ñuy tuddee rubu'i dinar mu ne mooy lépp lu ñuy moom kon can mën na bañ a doon xaalis kese comme ni ñu ko miinee fii nit ki mën na ñëw takk soxna lan la ko jox oto la ko may jeex na mi ngi noonu sun mag ñi àll bi bu yàggul dara dañ naan soxna si ngay takk ñu ne da nga koy may machine monteur rajo jeex na ak lañ koy teg alakuli xaal lépp lu ñuy moom rek dagan na nekk can donte ne lim ci dolli mooy fokkit mu daal di doon loo xam ne day ëpp rubu dinaar naam fuqaha yu bëri ñoom dañoo jàpp ne can munta paas muntul yées rubu dinaar rubu dinaar mooy lan mooy un gramme d'or ndax dinaaru sharia mooy quatre virgule vingt cinq grammes d'or donc mën nga wax ne daanaka rubu dinaar mooy presque un gramme bu teg un virgule zéro six grammes d'or loolu nag tey jii bu ñu demoon laaj tëgg bi or bi nga xam ne kenn liggéeyu gu ko ñaata la masalan mën na wax ne bu ne woon seize mille francs wala dix huit mille francs kon su boobaa ñu ne ah vingt mille francs bi day moom mooy rubu au dinar ñoom li tax ñu wax loolu mooy li tax yàlla tuddee sàcc ci sàcc pour ñu dagg loxoom yonent bi alei salaam dane kenn du dagg loxo sàcc lu dul daa sàcc lu ñu tudd rubu au dinar ndax lu yées rubu au dinar loolee dañuy jàpp rek def na lu bon attekat bi mën naa xool ban punition la koy def amma dagg loxo moom kenn du ko dagg lu dul ci rubu au dinar mooy alal du ñuy tudde lii alal la jël ñu bëri ci ñoom na qiyaas bi rawatina ki ñu may jànq yow da ngay tuur deretam ñu ne bala ngaa tuur deretam da nga jox rubu dinaar comme sàcc bee avant ñu dagg loxoom dafa sàcc rubu dinaar ñoom xiyaas boobu lañ ci def lu bari ci fuqaha yu maliki yi suñ maam yi jàngi fii moo tax ngay dégg ñu naan rubu dinaar donte ne léeg-léeg nga dégg ñu naan waaw rubu dinaar bi cinq mille ak six mille ñu ci bëri xamuñu sax ñoom luy rubu dinaar waaye rubu dinaar mooy presque un gramme d'or mi ngi noonu donte ne ne kii yonent bi alayhi salaam waxoon na ko demal iltamis walaw xaatiman min xadid demal même bu doonte ne da ngaa indi lii di jaaru xaalis allahuma lu dul ne canit mën naa nekk effort can ci sharia mën na nekk effort ndax xam ngeen effort day day remplacer alal yaakaar naa yéen ñëpp xam ngeen yonent yàlla Moussa bañ koy may soxna mayuñu ko ci alal dañ koo may ci effort goro bi dana ko sama doom bi laa lay may mais can gi mooy danga may sàmmal huit ans te loolu it bu ñu xoolee mbokk salaire huit ans loolu da ngay xool ça fait presque quatre-vingt-seize mois gis ngeen boo ko matalee dix ans sa coobare la bu dee lu bari ci borom xam-xam ñu ne Moussa matal na ko dix ans te loolu da nekk cent vingt mois ah waaw gars yi cent vingt mois tey jii ah boo ko mën a multiplier même salaire bi gën a néew di trente mille wala quarante mille loolu du bëri kon loolu mi ngi noonu mooy def na effort am na benn waay boo xam ne ni bi ko yonent bi laajee ci can dina amul dara mu ne ko ndax am nga loo mokkal ci alxuraan mu ne ko ah kay mokkal naa saar teel saar teel am na riwaay wax sax mokkal naa suratul baqara yonent bi alayhi salaam ne ko may naa la ko ci li nga mokkal alxuraan fexeel ba li nga mokkal mu mokkal ko loolu mooy can gi loolee kon mbokk can mën na nekk effort boo xam ne kay takk si lañ koy laaj su defee effort boobee loolee mën na remplacer la nga xam ne mooy can ga ñeenteelu àttee ci can mooy yu saxu ta'diluhu ma al aqd daañ wéral la nga xam ne moom mooy gaawe gañ koy gaawe mu ànd ak pas-pas bi dañuy maye can gaa ngi nii maye nañu doonte ne it mënoon naa jiitu pas-pas ba comme lu bari niñ koy defee fii Sénégal can gi mënoon naa jiitu pas-pas ba mu ne it wa yusaxu tajiluhu aw badu aw baduhu ila ajal dena daga nit ñu yéexee joxe can gi wala lenn la ba ci dig bu ñu xam kii ñëw ne di ñaan soxna ñu ne ko cent mille mooy can gi mu ne d'accord ñu takk sëy bi can gi nekk bor ci moom wala mu ne d'accord joxe cinquante mille mu des cinquante mille loolee da ngay gis ni mbir la boo xamee ne nii dana nekkit doon loo xam ne nii lu wér la ci wàllu can googee li qawlihi subhanahu wa taala wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna su dee ne seen soxna yi da ngeen leen a fase te musu leen leen a laal ay musu leen ànd ci lal wa qad faradtum lahunna farida te farataaloon ngeen leen ab farata ci wàllu can mi ngi noonu da ngay gis te ca ay topp mooy dañ ko jàng ci kanam fa nisuma farattu waaye loolu it li muy firi mooy yow ci dañ la ko may ba nga fase ko ca can ga nga waxoon da nga koy joxe joxoo ko yow daal farataaloon nga rek ne da nga ko jox temps waaye joxoo ko ko teewul loolee dañ naan sëy bi sëy bu baax la mu ne gayra annahu yustahabu itaauha shay'an qabla duxul lu dul nag ne can gi bu la neexee yeexe ko mu nekk bor waaye nag sopp nañu bala ngaa ànd ak sa soxna ci lal nga am lenn loo teg ci loxoom nga am lenn loo teg ci loxoom لما روى أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يؤتي فاطمة شيئا قبل الدخول am na ñooñu génn xadis Abu Dawud ak Nasaayi mu ne kii nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day bi Ali takkee Fatima daf ne ko seetal loo ko jox avant ngay mën a ànd ak moom ci lan fa qaala ma indi shay'u maa lii na ko a yému yàlla yi man de ooma dara gis ngeen man de ooma dara te ma nekkoon jàmbaari góor jàmbaari xam-xam ah man de ooma dara mooy al fuqara al muhajirin ñu gàddaay yoon seen lépp dem dimbali yàlla ak yonent yàlla ah man ooma dara fa qaala ayna diruuka mu ne ko waaw ana sa gilet bi ngay sol sa mbubb koŋ sa gilet ba fa aataaha dir'ahu mu jox ko mbubb koŋ ba te mbubb koŋ boobee ali ma ngi ko jële woon ca badr xane badr la gañe woon benn mbubb koŋ mu gilet bu am valeur ñooñu nekkoon badr ñoo doon officier supérieur de l'armée islamique waaye gis nga bi mu ko laajee mu ne ah man awma dara yonent bi ne ko mais ana sa mbubb koŋ bi nga jële woon badar mu ne waaw mu daal di ko koy canale am na riwaay yooyu ne daf ko ne ko na ko jaay canale ko ko ba mu demee di ko jaay Usmaan ibnu Affaan moo ko jënd mu jël xaalis ba cane ko Usmaan jëlaat mbubb ba mayaat ko ko radiyallahu anhu gis ngeen ala kulli xaal kon day wane ne heure booy ànd ak soxna mën nga ko tuddal can ñu jox la sa soxna waaye nag rafet na jigéen bala nga ànd ak moom ci lal nga am loo xam ne da nga koy yëkkati jox ko ko juróomeelu atte bi yataallaqu sadaaqu bi zimma saa'at al aqd la nga xamee ne mooy can ga day dana lënkaloog ci kulle rek waaja tolloo su waaja jamono bi ñu la mayee soxna wa yajibu bu duxul te it day war heure boo àndee ak moom ci lal tey jii heure boo ñëwoon di ñaan soxna ñoo ne la ah ñaata nga koy may nga ne danaa ko may deux cent mille ñu takk sëy bi deux cent mille yooyu moom mi ngi soloos boo dee woon tey tey tey bala ñoo miraas dañ jël sa xaalis deux cent mille amma bu dee ànd nga ak moom ci lal deux cent mille farata la nga jox ko ko lépp waaye mu ne fa in tallaqaha qabla duxul saqata nisfahu wa baqiya alayhi nisfahu su doonte ne nag da nga ne danaa ko may deux cent mille yàlla dogal avant ngeen di ànd ci lal nga fase ko su booba cent mille yi moom farata la nga jox ko ko cent mille yi islam teggil na la ko waaye yeneen cent mille yi moom farata la nga jox ko maadaama yaa ko tuddoon bañ may la ko li nga noonu xam nga bu ngeen ànd ma see ànd ci lal benn yoon moom deux cent mille yépp nga koy jox ñu ngi noonu li qawlihi taala wa in tallaqtumuhun min qabli an tamasuhunna jigéen ñi de bu dee da ngeen leen a fase jiitu ngeen leen di ànd ak di di di laal ànd ak ñoom ci lal wa qad faradtum lahunna farida te farataaloon ngeen na da ngeen leen jox benn can fa nisuma faradtum kon genn wàllu la ngeen tuddoon moom nañ ko jox soxna si te it mbokk lislaam yi ngi noonu islaam bëggul kuy tas yaakaar yi ngi noonu islaam bëggul kuy tas yaakaar boo ko noonu danaa la may deux millions yi tamit bañ takk sëy bi boo ko fasee un million bi da nga ko ko war a jox loolu mi ngi noonu amma bu dee àttee bi mujj ci can mu ne in maata zawju qabla duxul qabla duxuli biha wa baada al aqd aqd su dee ne jëkkër ji nag daa faatu avant muy ànd ak soxna sa ci lal gannaaw bañ takkee sëy ba ba pare rek jëkkër ja faatu sabata laha al miras wa sadaqu kamilan su boobaa soxna si day donn waaj mën na mosuñu gisante de kee nga Amérique kii nga Sénégal waaye takk nañ sëy bi waaja dee na soxna si day doon na waa ji can gi ñu waxoon dañ ko koy jox dañ ko koy jox mu mat sëkk di qadaai rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi zalik wax yonent bi kat noone la ko la ko atte woon in kaana samma laha sadaq sadaqan te lii mooy bu doon waa ju tuddoon ne danaa ko may temps amma bu dee dañ ko koo may ci tuddulu ko woon can wa in lam yusammi falaha al mahrul misl su boobaa daañu xool ay sëram ñaata lañ leen mayoon ñu jël loolu ci alali waaja doog a jox ndaw si wàllam ci miiraas bi gis ngeen wa alayha iddatul wafa ca de boobaa it ndaw si day doon koo xam ne ni koy tënji la te loolu am tuuti différence ak fase gi ñu ngi noonu mooy jigéen boo ko boo ko fasee ca musulin ànd ci lal genn wàllu can ga moom lay jël ca du iddewu bis bi nga ko fasee bis boobu mën nañ koo mayee genn wàllu can la la am ci yow amma bu dee waa ji dafa dee can gu mat sëkk lay am booleeg miraasam te doy doon koo xam ne nii day tënj loolu it mbokk da ngay gis ak a bari gaa yi wax islam dafay suufeel jigéen dafa kaza wa kaza waaye gannaaw boo xamoon dëgg dëgg dëgg dëgg atte sharia da nga daan islam jigéen la gën a faral góor gis ngeen ca bokk na ci atte bi rek kee nga amee rek kee nga Sénégal mos ñu gisante takk na ko rek dee na teewul ñu ne can gam waxoon da koy jox muy benn soxna si da koy doon waa ji bu nekkoon bàyyi woon un milliard it kaaru alal ji soxna si moo koy moom ci mus ñu sax gisante loolu koy da nga naan loolu lañ koy mën a tuddee waaye arhamur rahimin suñu boroom mooy ki xam te it mooy ki atte ay jaamam loo xam ne nii moo ko ca neex loolu mbokk mooy la nga xam ne nii moo aju woon ci wàllu can gi jiitu ñu dem ci aaday adabu nikah su doonte ne am na ko am laaj bu jëm ci can ñu jëm seet luñ ci tontu avant ñuy dem ci beneen bunt bi su dee am na laaj boo xam ne dafa jëm ci attee can lan la ci am ko ci laaj waaw ala kulli xaal su dee amul it kon ñu wéy ci suñu téere bi mooy mu ne aadaabu nikaax ana yan teggin le lislaam tëral ne ab sëy ca la war a tëddee wa sunanuhu ana yan sunna le lislaam tëral ne ab sëy ca la war a tëddee lu ci jiitu mooy al xutba al xutba mooy discours ba nga xamee ni nii ka jiite pas-pasu sëy ba imam balaam keneen ku dul imam nga xam ne moom mooy jiite jataay ba moom lay jiital ci ay wax ah jiitu ñuy takk sëy bi li ñu miin fii ci Sénégal mooy dañu naan nañ maye ba pare gannaaw ba ñu xutba waaye la ko gënoon mooy ñu xutba ba pare doog a maye donte ne ñaar yëpp mën naa nekk waaye la gënoon mooy ñu xutba ba pare doog a maye ndax xutba bi mooy ñaax aji maye yi xam leen contrat bi ngeen nar a signé kat mooy contrat bi gën a màgg ci contrat yi ñuy signé ci kaw suuf xutba boobee yàgg ngeen ko dégg te mooy inna alhamdulillah mboole mi sant day ñeel na yàlla nastainuhu wa nastaghfiru ñoo ngi koy jéggalu ñoo ngi koy dimminikoo te di ko jéggalu wa nauzu billahi min shururi anfusina ñi ngi làqu ci yàlla ngir mu musal ñu sunu ay bakkan yi wa sayyiaati a'malina musal ñu ci suñu ñaawteefi jëf yi man yahdihi llahu fala mudilla la ku yàlla jubal kenn mënu koo réeral wa man yudlil fala hadiya la ku yàlla réeral kenn mënu koo jubal wa ashhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah maa ngi seede ne kenn yeyoowul ñu koy jaamu ku dul yàlla naam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh maa ngi seede ne muhammad jaamam la yonentam la gannaaw ba su ma yaqra mu jàng aaya ya borom di wax ci suratu ñu ngi noonu al imran ya ayuha allazina amanu taqullah xaqa tuqaati wala tamutunna illa wa antum muslimun ay yéen jullit ñi ragal leen yàlla ne yàlla yooyu ñu ragal ko ko bu leen dee mukk lu dul fekk da ngeen jébbalul yàlla aaya ñaareel ba ma nga ci suratu ba suratu nisa fi borom bi di wax naan ya ayuha annaasu taqu rabbakum ba baa mu yegg inna allaha kaana alaykum raqiba ay ñetteel ba ma nga suratul ahzab suñu borom di waxee ni ya ayuha allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ba fa mu yéeg naan wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faaza fawzan azima loolee mbokk kon mooy la nga xamee ne nii yonent bi alayhi salatu wassalaam da ko daan jiital ci discours am moo tax yow mu yor téere bu mu ne ruya annahu alayhi salatu wassalam solo nañ ne yonent bi qaal ida arada ahadukum an yaxtuba li xaajatin min nikah aw gayrihi falyaqul alhamdulillah yonent bi alei salaam daraan wax naan kenn ci yéen day su bëggee def xutba ci wàllu sëy wala leneen lu mën a doon lu am solo te waay ne jiital sant yàlla te jàng ñetti aay yooyu nga xam ne jàng nañ ko loolu nag mbokk dañu xam ne sunna la ci pas-pas bi mënoon nañoo takk ba pare jeex na may ma sa doom may naa la ko seede ngeen jeex na waaye xutba bay dafay doon loo xam ne sunna la ñaan gañ leen di ñaanal it dafay doon loo xam ne nii sunna la su ko defee ana lan mooy ñetteelu aad ñetteelu teggin ci wàllu sëy teggin boobu mooy alwalima mooy li ñuy tudde ak céet li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li abdurrahman ibnu awf lamma tazawaja yeneen ti waxoon na abdurrahman ibnu awf mi ngi noonu yéen xale yi xam ay Ronaldo ak Messi abdurrahman ibnu awf bokkoon na ci fukki ñi yeneen ti bi alayhi salaam ne àjjana la jëm keroog ba mu gàddaayee ñëw Madina doon bokkoon te faqir ya yàlla dogal muy dem ca marché ba di jógo ko daanu ba am lu ko yàlla wërsëgal mu daal di takk soxna yeneen bi dana ko awlim wooteel ak cédwaay walaw bi sha même bu doon ab gàtt ngay rey loolu it nekk loo xam ne ni jullit ñi ci sunna ceet la bokk moo tax mu ne wal walima taamul orsi lii di walima muy ceet mooy lekk ga ñuy togg ci ceet ga su ko defee sopp nañu ci yow mi takk ab séet ngal la waay nga tuural ko deret yonent bi nee na ko même bu doon ab gàtt sax te mooy boo amul séet nga rey nag wala nga rey giléem wala nga rey lu mu mën a doon it islaam du ne du noonu teraanga la boo xam ne dañ koy defal jullit ñi ba nga xamee ne même bu doon dañ faa nekk une semaine di xéewli it loolu ci sunna yi céet la bokk bu sa loxo jotul gannaaw boo doon dem ba rey benn bëy sax utal benn bëy nga rey ko ngalawaay ci sa céet bu dee yàlla mën na loo nokk loo ko yàlla mën loo it nga xam ne yàlla mën loo woon yonent bi alei salaam am na soxnaam yoo xam ne fekk yorul dara reyuñu dara ñu ngi noonu loolu kon ñoom yor sab téere it mu ne wa yajibu xuduuru man du'iya ilayhi képp koo xam ne dañ ko woo ci céet nga la way ne dem te xam leen ne céet rek moom mooy daje boo xam ne lislaam da ko woote ñu daje ko ci mbégte bu dul ñaari iid yi yeneen lu dul céet ay aada la xatta daje ci ngénte ay aada la waaye céet moom daje sunna la yonent bi alei salaatu wasalaam mu ne ku ñu woo jëm ci ak céet nga la way ne wuy ji moo tax mu ne man du'iya ila urs aw nahwihi fal yajib ku ñu woo jëma ci céet ak lu xaw a méngoo céet e waay ñu dem wuy ji wa yuraxasu fi adami xuduriha in kaana biha lahwun aw baatil mu ne leen daal la ñuy yombal ci nga bañ a dem su dee ne ay puukare moo fa nekk ak i caaxaan lépp loo xam ni daal ak càggante ki caaxaan moo fa nekk musique yaag jaxasoo góor ak jigéen ak ak naka su dul noonu am nga droit bañ a dem wa man da'ahu ismaan qaddama awalu awaluhuma wa wajjaha ilayhi da'wa ku ñaari nit yéeganaloo ceet benn bis kala jëkk a yégal ceet kooku ngay jiital mi ngi noonu wa yud'a laha alfuqara'u kal aghniya yow miy seet inviteel ñi am waaye invité lit ñi ñàkk invité lit ñi nga xam ne amuñu yonent bi alei salaam daana wax naan li qawli sallallahu alayhi wasallam charru taam taamul walima li gën a bon ci ñam yi mooy ñamu céet mooy ñamu céet yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilayha man ya'baha ndax dañu koy xañ ña nga xam ne dañu ko dikkal mooy faqiir yi nga xam ne seen loxo jotul gannaaw buñ gisee ab dajëb ceet dañuy ñëw kenn invité wu leen ñu ñëw waaye pour ñu jot ci lekk yi day doon problème ñi nga xam ne nag dañoo am am seen i ittee ñoom di dem ceet gi sax da leen di déranger waaye teewul ñuy insister bëgguñu ñëw gis ngeen ñàkk soxla duñ leen ko jox ña nga xam ne bëgguñu faa dem ñoom lañ cay woo waaye ala kulli xaal yow bu la yàlla may ak ceet ña nga bokkal dëkkandoog bokkal jàkka galluwaay tànnal ñëpp ña am ak ña amul ñëpp nga yëgal leen ñu ngi noonu yonent bi alayhi salaam daana wax naan wa man la yujibi da'wa faqad asa allah wa rasula koo xam ne dañ koo yëgal ak ceet ba pare mu bañ a dem ca ceet ga ku mel noonee day moy na yàlla moy na yonent yàlla bi charte mooy amul ngant moom ci boppam te it fa mu jëm ngant sharia bu koy tee mu dem fa amu fa waaye bu dee am na ngant ci boppam loolu taxul ñuy wax su dee fa mu jëmit ngant sharia dafa am ci ay caaxaan loolu taxul ñuy wax mu ne it wa man du'iya wa huwa saa'im ajaaba da'wa suñ ne yégalee ci fekk da ngaa woor nee na demal wuy ji wa in sha'a akala in kaana sawmuhu tatawwa'an su dee ne yow da ngaa nekk rek koorug naafila bu la neexee dogal sa koor nga añ ca añ ba wa in sha'a da'a lahum wa xaraja bu la neexee nga ko ah sëñ bi yal na yàlla barkel waay nga baal ma añ bi nag tey dama woo e nga ñaanal ko nga dem li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ida du'iya ahadukum falyujib fa in kana sa'iman falyusalli kenn ceen buñ ko woo ci ceet waaye ne da wuy ji bu dee dafa woor mu daa di ñaan assalaat mooy ñaan falyusalli mooy ne na ñaan du du mu julli ay yad'u na ñaan wa in kana muftiran falyut'im amma bu dee ne nag wóoroo woon moom nga la waay lekkal ca ñam boobee nga xam ne dañ laa wax nga dem nga dem wuy jukk bokk na ci ñetteel bi mooy ilaanu nikah bi dof bëgg nañu siiwal céet gi ci tëgg ci la nga xam ne mooy dof dof mbokk da xam ngeen tame de tame yi jigéen ñi tame da koy ëpp tuuti rek ñu daal di koy couvrir benn côté bi ci der nga xam ne moom la jigéen ñi daan jël di tëgg nga xam ne daanaka bu ñu koy tëgg de passer à peine ay cinquante mètres yu demee noonu wa xinaa il mubaax dana daga nit la nga xam ne mooy wayyu dagan li qawli salaa sallam faslu ma bayna al xalaal wal xaraam lay teqale ci lu ñu daganal ak lu ñu xaraamal mooy adduf wa sawtu ay fil urs mooy ci la nga xam ne nii mooy ak ceet wal iday ni bokk na loo xamee ne nii dafay araam ci yeneen jour islam maye ko may ko jigéen ñi mooy bisu iit wala bisu ceet ñu tëgg seen duf yooyu way seeni way ñoom neen ci seen biir loolee islam may na ko ndax itamit li ñu bëgg ci siiwal ceet googee invité ci nit ñi xamle ko ngiree ñëpp xam ne kat suñ càm mi léegi moom mooy borom këru Fat Njaay bu ko defee buñ ko gisee mu ànd ak góor ñoo xam ne ñii lañ doon maye képp ku ca xelam demoon xam ne ah kooku soxna soosu léegi am na borom kër loolu mooy politique gu lislaam ne nañu siiwal la nga xam ne nii moom mooy ceet googee li nga noonu su ko defee kon ñeenteel bi mooy du'a li zawjayni sopp nañu yow mi fekkee céet ga wala fa ñuy takk sëy ba nga ñaanal ñaari way dencante ya li qawli abi hurayra radiyallahu anhu inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yonent bi day salaa sallam ne kaana ida rafa al insaan ay tazawaja heure boo xamee ne nii kenn ci nit ñi takkoon na soxna qaal baarakallahu lak wa baaraka alayk wa jamaa baynakuma fi xayr yeneen ci bi da ko daan ñaanal e waay yal na yàlla barkeel la ñeel la ay ko góor ki yal na yàlla barkeel ñeel la soxna si la yàlla may yal na ka yàlla barkeel wa baraka alayka yow it yal na yàlla barkeel wa jamaa baynakuma fi xayr yal na yàlla boole leen ci aw yiw su dee ko jigéen ki ngay ñaanal da nga naan ko barakallahu lakki wa baraka alayki wa jamaa baynakuma fi xayr mi nga noonu yal na yàlla boole barke leen aw yiw naam ca mbokk barke lu ko yàlla wàcce dafay teggi lor ya te it baril njëriñ ya yal na yàlla barkeel lañu suñu sëy ak suñu sëy njaboot juróomeel ba mooy an yadxula biha fi shawal soo manee sa sit nga sëy si ci korité loolee ci sunna yi ñu dabu la bokk ci li ñu sopp la bokk li qawli aïchata radiallahu anha tazawajani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi shawal man de yonent bi alayhi salaam ci yoru shawal la ma takk wa banaa bi wa banaa bi fi shawal bi muy ànd ak man ci lal ci shawal la fa ayu nisaai rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kaana ahza indi min indahu minni ana ban soxna yonent bi alayhi salaam moo ëppoon cër ci man wa kaanat tustahabu an yadxula nisa an yadxula nisaauha fi shawal bokkoon na it loo xam ne nii yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana sopp di ànd ak ay soxnaam te la nga xam ne mooy shawaal kon ñun mbokk gis ngeen islaam bëggul gaafal islaam du gaafal waaye am na lu ñu sopp lu ñu sopp yooyee yonent bi alayhi salaam masalan bëggoon na soppoon na ay tukkee mu koy tomb rek alxames mi ngi noonu naka noonu itamit soppoon na ay soxnaam muy ànd ak ñoom ci shawaal amma gaaf moom islaam gaafalul benn bis gaafalul benn weer juróom benneel bi ida daxala ala zawji axasa bi naasiyatiha wa qaal heure boo nekkee sa soxna ba soxna si sëy si delal sa loxo jàpp ci karawu jéem daa ji ne allahuma inni asaluka min xayri ma min xayriha wa xayri ma jabaltaha alayhi e yàlla maa ngi lay ñaan ci yiwam ak yiw wi nga xam ne da nga ko koo bindee aw yiwam mooy la muy effort sabablu di ko def la ko yàlla bind nag mooy loo xam ne naturam la xëy na sax moom du moo def effort pour moom xam ngeen ñaari ñaari façon jukko moo am loo xam ne da ngay def effort di ko def ak loo xam ne yàlla la ko bindee mi ngi noonu xam ashja ibn al qays ba ko yonente bi gisee na ko yaa ngeeg jukko yu yàlla bëgg yow da ngaa tey te da ngaa lewet mu ne ko loolu maa ko sababul am yàlla ma ko bindee mu ne yàlla la ko bindee mu ne maa ngi sant yàlla mi ma bindee ci jukko yu yàlla ak yonente bi gërëm yàlla na yàlla rafetal suñuy jukko kon yàlla yaan na nga may yiwam ak yiw wi nga ko bindee wa a'udhu bika min sharri ha wa sharri ma jabaltaha alayhi yàlla na nga musal ci ay bi muy sabablu ak ay wi nga xam ne da nga ko koy bindee gis ngeen is ruya anhu sallallahu alayhi wa sallam zalik ndax kat solo nañu loolu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu ñu delloo ci juróom-ñaareel bi wante ne boo demoon ci yeneen téere dañuy wax ne sopp nañu bala ngeen yegg ca juróom-ñaareel ba su ngeen mënee jëlu ñaari rakk ngeen ubbeeku seen néegu sëy mi ngi noonu waaye juróom-ñaareel ba mooy bu dee da ngeen dem ba ca kaw lal ba yaqulu inda iradatil jima fa nga demee ba bëgg a ànd ak moom waxal bismillah allahuma jannib na cheytan wa jannibi cheytan ma razaqtana neel maa ngi tàmbalee ànd ak moom ci turu yàlla yàlla yàlla nañ ñu soril cheytan soril cheytaane lépp lu ñu mën a wërsëgal lama ruya anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal man qaala al ax képp kuy bëgg a ànd ak sa soxna nga ne bismillah allahuma jannib na cheytan wa jannibi cheytan ma razaqtana maa ngi tàmbale ci turu yàlla yàlla soril ñu cheytaan soril cheytaan la ñu wërsëgal fa in quddira baynahuma fi zalika walad su dee seen ànd boobu doom da caa sosoo lan yadurruhu zalika walad cheytaanu abadan doom jooju cheytaan du ko mënal dara mukk mi ngi noonu ba ca mujjoon nag yukrahu li zawjayni ifshaa'u ma jara baynahuma min ahadisil jima sut nañ lool kii di góor dem di nettali la muy siq ak soxnaam ca lal wala soxna dem di nettali la muy siq ak borom këram ca lal ba li xawlihi sallallahu alayhi wasallam inna min sharri naasi inda allahi manzila am na ñi gën a yées ci nit ñi la nga xamee ne nii ab wàccuwaay yowm alqiyama rajulun yufdi ila almar'a mooy jigéen góor goo xam ne dafa dem wàcc ca soxna sa wa tufdi ilayhi soxna si wàcc ci moom ay feeñu ko ñu ànd ci sëy suma yunshiru sirruhuma gan sirruhuma gannaaw bu mu dem di tasaare nag secret bañ def ca biir néeg ya te loolee mbokk jullit da ngay gis ne mbokk na musiba bu rëy bi ñu yàlla nattoo benn mbokk nettali na ma koo xamee ne nii soxnaam day ànd ak moom def ko vidéo di ko won di ko won ay xaritam mbokk ndax lii borom xel bu rafet dana dana kii mais malheureusement portable dofloo na doomu aadama yi loo xam ne suñuy maam mosuñu ko woon xel xalaat ndax doomu aadama yi li ñu xam sa soxna da ngeen di ànd dugg ci mu ne ngeen tëju la ngeen fay def yonent waaye sam neen dem di ko nettali sax loole bakkaar la nettali rek sama soxna si nii sama soxna si naa wala sama borom kër bi loolu rek bakkaar la am maa nag di def loolu di filmer sa bopp loolee mbokk da nga xam ne ci yu grave la bokk loolee ñu bàyyi ci xel bu baax léeg-léeg it suñu mbokk rawatina moodu moodu yi duñ ci xam lu bari day gis ñoo xam ne dañuy sant seen soxna soxna si futteeku yaram mu neen di def ay melokaan ñoom ñu nekk fa nekk Amérique wala Allemagne di bànneexu ci loolu ñàkk xam xamulee fi nga koy jaarale par WhatsApp par Facebook par lan yooyu ay ñeneen ñoo ko moom te loolu lépp c'est stocké ci seen i seen i mémoire tey jii li la koy xamal bu ji amoon rek police remonté sa portable li nga fi def weer bi yépp kon loolu données yooyu moomoo ko looloo tax ba góor warul sàkk loolu ci jabaram jabarit booloo góor sàkkoo ci loolu waroo koo topp ci loolu yal na yàlla laabal ñu laabal suñuy pas-pas laabal suñuy xalaat wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ay aada ñi nga xam ne dañuy àbb seeni soxna fekk céetalaguñ ko waaw loolu day moom réew mu nekk dafa am ay aaday boppam waaye bu doonte ne daal li lislaam xamoon mooy ciit moom mi ngi am te daje ba jëkkër ji daje ak soxnaam loolu lislaam xam ci ciit su ko defee seen daje boobee tey jii da ngay gis men doon doon fekki waa ji am na beneen soxna soxna soosee ba mu ñëwee dajeeg moom juróom-ñaari fan islam danañ ko ci moom kese ngay aaye su doon soxna si mas naa jaar ci sëy ñetti fan ci moom dongo lay aaye loolu moom li lislaam xam jël bee ñu daje bañ a daje mu loolu la ñu xam ñu def ko ak ceet amma nag ci comme ni nga xam ne suñu aade fi moom da ngay gis ñoo xam ne nii caay mi ñi dañuy ñëw ne nañ ne àbb seen seen àbb seen soxna àbb loo moom moom léeg-léeg ñu àbb ko lu man ñaari at ñetti at ba ba soxna si am doom ba jour ngénte la ñu doog a nag boole ngénte li ak ceet gi yépp loolu moom ay changement la ci wàllu aada maadaama ceetal nañ ko dañ naan ceetal nañ ko waaye nag fa mu gëne woon daal mooy ca daje ba jëkk ba wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam waaleykum salaam waaw rubu dinaar bi moom lañu doon wax ne dinaar ci islam mooy 4 virgule vingt cinq grammes looloo tax tey jii dañ naan la zakatu or mi ngi nekk quatre vingt cinq grammes ndax vingt dinaar mooy zakatu or boo xoolee vingt fois quatre virgule vingt cinq da lay jox quatre vingt cinq grammes d'or donc quatre virgule vingt cinq boo ko xoolee c'est juste presque un virgule six daanaka un gramme bu teg tuuti tuuti tuuti rek loolu moo tax ba tey jii boo demoon day valeur dollar or bi day varier il faut ñu laaj ka nga xam ne ni moom mooy tëgg bi or pur bi nga xam ne kenn defaragu ko fan la toll tey jii bu ne woon masalan gramme baa ngi quinze mille ñoo xam ne rubu u dinar mën nañu wax seize mille la gramme baa ngi dix mille rubu u dinar onze mille la gramme baa ngi vingt mille rubu u dinar vingt et un mille la parce que gramme bi daal mooy rubu u dinar ak lu tuuti tuuti kon luñ ci teg rek day représenté loolu mi ngi noonu loolu nag comme ni ma ko waxee moom mooy fuqaha yu bëri loolu lañu gis ak mazhab Malik amma bu ñu delloo ci yeneen borom gisee ne borom xam-xam yi ñoom dañ ne loolu qiyaas la boo xam ne seen ijtihaad moo leen ko may waaye du lu yàlla wax wala lu yeneen ci yàlla wax can daal mooy loo xamee ne nii ak moomeel la te it yomb na ca waaja mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam